ni mu dugalee tariqa tijaaniyee ci Sénégal gii ak ni mu ko fi siiwalee tasaaree ko fi kii ñu tuddee bis bi tey jii dafa ni tariqa tijaan yi ni mu ni ñu ko dugalee Sénégal noonu laa koy tasaaree ba mu tasaaroo ci Sénégal ma génnee ko na tasaare ko ci àddina bi tey te lu mel noonu bu ñu ko wootee ca yàlla dimbali na ba tey cheikh itam cheikh Ibrahima Niass xawma ni woon ni sax eh, dinaa mën a am jataayu wax ne kon dinaa gën a programme li nga xam si xam nañ ko ci moom fa tabaarakallaahu moo tax tudde gi ñu ko ko tujjee tudde kenn ku nekk ci ñun ñii mën naa mën naa taxaw taxawaayu mën naa taxaw taxawaayu njabootu Cheikh Ibrahima Niass ci jataay bu mel nii ñun nag li ñu xam ñu nag li ñu xam mooy li ñu Serigne Abbas daan nett li li ñu Serigne Abbas daan nett li ci eh, nit yàlla yi waaye ba mu ñuy wax ci Cheikh Ibrahima Niass dafa ni lu néew na lool doon xutbaaniye doon xutbaaniye néew na ko fu ñu koy def sa baay day nekk xutb yow boo jaar ci ay tànkam même boo nekkul xutb da nga am darajey xutb mu ni moom seede na ni Cheikh Ibrahima Niass kaana xutba zamanihi kama kaana waaliduhu Cheikh Abdoulaye Niass xutbal zamani yàlla dimbale na koot yàlla dimbale na koot njabootam gépp a jàng loolu bokk na ci li ko yàlla njabootam gépp a jàng taalibeem yi xanaa ku di nelaw nga xam ne jàngoo dafa da ngaa bañ a jàng waaye taalibeem bu ci commencé dara rek yàlla dimbale na